gis na defe naa ne bi bu ngeen ko gisee wala taxawaay bi defe naa jataayu tiis la jataayu naqar mu mel ni Mondo Sport ñoo ñàkk seen doom muy Moussa Diouf naay nekkoon xarit ci ñi ànd ak ñi ba yàlla jël ko tey Balla Gaye ngi taxaw Gris Bordeaux bàyyi ma ñoon ak Sa Thiès Gris ñu leen di nuyu di leen jaal li ngeen xam ne moom la ñu bokk muy Moussa Diouf ñu fi génnee wuy ji borom waaw moom dañuy wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Moussa moom euh, wax ni le ku ci nekk rek mën nga ko jaale sa morom waaw parce que suñ ñëw fii moom ñëw tiis la parce que tamit euh, bett nañu ñëpp nag waaw bett nañu ku lu mbër rek bi nga déggee xibaar bi rek am nga mbetteel lool loolu nag moom loolu nag moom wax dëgg yàlla tiis la lool bu dal suñu kaw waaye nag euh, mbiru suñu borom nag moom suñu borom moom bu soxlaa moom jàmm bi dafay xaar parce que moo ko moo moo ko moom alalam la jël waaw mais nag mun mënuñoo bañ a metti nag waaw parce que Moussa nag kenn loon ci ñun bokk ci ñun nekkoon nit koo xam ne nag ku ñu ràññeewoon la suñu biir xam nga ci personnalité am ci ay jikkoom yi nga xam ne daal wax dëgg yàlla nit ku ko am rek nit dina la bàyyi xel ci personnalité parce que feebar bi wax dëgg yàlla xaw na ko soxaale tuuti mais nag di dignité ak personnalité moo tax déggoo ko fen parce que nit dara mën na koo wax nga koy dégg fu ne waaye loolu wax dëgg yàlla dalul Moussa loolu nag ay waajuram ñoo ko yar ci loolu parce que xam nga loolu la ñu wax ci kaw ci kaw ci góor gi mën a ko ah Moussa de wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñaanal yàlla fa la mu tëdd yàlla na ko gënal fii mu jóge lool yàlla bañ ko toppee dara ci ay rëq-rëq que tamit euh, du ñàkk parce que yàlla moom xam nga ay mbiram moom moom moo xam inna allaha maa sabirin xam nga yàlla na ko yàlla bu yàlla toppee dara lépp loo xam ne ay rëq-rëq ci ay njuumte yàlla na na ko ko yàlla fulal bañ ko ko toppee dara waaye daal ñu ngi koy jaale le monde de la lutte di leen jaale yéen presse bi parce que ñu nax yéen a bokk liggéey bi parce que tamit lu dal suñu kaw daal na seen kaw ni ngeen ni ñu ko xamee ni ñu ko xamee doon jëflante ak ñoom moom mu bokk suñu biir yéen noonu ngeen doon jëflante ak moom xam nga xam ko bu baax a baax a baax man damay wax nii man euh, Moussa bokk na ci li ma def mbër musaa ma njëkk daan mbapat ma xool ko rek mbapatu zalloo mu tuuti rek man ah kii da moom benn voyage laa ko war a def ma ñëw mu daan ma jëli bu rëy ma ne à partir de tey du dootuma bëreet ak mbër ci àddina di ko xeeb kon Moussa am na lu mu def ci man xam nga moo tax wax dëgg yàlla amoon dañuy wax ni làmb euh, mën a bëre taxul làmb fay la parce que làmb am na ci loo xam ne mbiru suñu boroon am ci loo xam ne wërsëg la ñu dàq football ci Sénégal lekk xaalisu football làmb ji ñi ci dàqoon a bëre lekk xaalisu làmb kon boog mbir mi wërsëg la mbiru suñu borom la suñu borom moo ci dugal loxoom. di ci teral ku ne waaye Moussa bokkoon na mbëri dàq bëri ci làmb ji. ci cal ci ci calcul ci tactique ci façon bëree ak démarche. dama ko doon xoolee sax Moussa yi ci taxawaay. waaye nag euh, ñu ngi koy jaale mbokkam yëpp di ko baale jaale suñu frère yi ñu àndal. parce que tamit euh, mosuñu ma bàyyi fu ma taxaw rek ci wàllu ci jóg. pour euh, pour pour pour fépp fu ma dem taxaw fa mbër. dañuy ne sama wet. muy suma frère Balla Gaye nii ñuy taxaw sama Modou Khoule Frazier mhm. ñi fi waroon teew ci ay mbër yëpp mhm. teew nañ fi Sa mhm. Thiès et tant muy wane ni ñun yi benn bopp lañu nous sommes des adversaires ci benn tàkkusaan ay adversaires muy war a bëri Balla Gaye mi dañu war a bëri le 7 août mais tey am na loo xam ne li liñ fi teewal li fi tax ñu daje fi <laughs> yàgg na dajale ay nit mooy dëgg moo wóor ku ci nekk nag jamono ji na nga ta defar sa toogaay parce que gars yi dañuy yaakaar ni faatu dem àllaaxira moom paa yu màgget ya fay dem dee léegi amul xale amul mag kon boog nañu waajal suñu bopp defar suñu toogaay. képp ku ci yàlla boole sa nawle ak ci liggéey seen diggante na ko rafetal. na ngeen séq jàmm. na ngeen rafetal seen diggante parce que di di dox ci loo xam ne. Euh, ci lu neex yàlla. parce que tamit loo xam ne day jékki-jékki na xas sa kaw. ak lu mu la fekk ngay def. du la jox temps dara sax boo demee naan da ngay dem jëli yére wala doon kon boog war na nga war na war nga di defaraat sa toogaay di rafetal sa diggante ak ak ku la yàlla booleel moo tax yàlla yonent bi naan laata baax a du walaata xaasa du walaata daabaru mu ne laata baax a du bàyyi leen di bañante walaata xaasa du bu leen di ñaanante mm-hmm. walaata daabaru bu leen di tongoo mm-hmm. mun a wakkuunu nekk ngeen ibadallahi di ay jaamu yàlla a axwaanan di ay mbokk mm-hmm. al muslim aqul muslim jullit jullitay mbokkam te léegi li xew léegi kenn xamul lu mu toll wanente ay ayib du weer nit xamal nit dara bu wili pande ko nga ne nga te yonent bi wax ci xadis na sittatun tuxbitul amal mu ne am na juróom benn jikko yoo xam ne tuxbitu boo ci amee benn al day day ful say say jëf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne sittatun juróom benn jikko tuxbitu dafay effacer say yiw al amal mooy say ay jëf mm-hmm. ñu ne ko yaa rasulallah jikko yooyu ban la yan la mu ne al istighali bu uyu bil mooy nit ki nga xam ne day xool lu bon ci nit mu koy wili pande jikko boobu boo ko amee loo jaamu yàlla lu yàlla nangu mun a waxasatul xal bi borom xool bu wow mooy ku bon xool waxu bu duniyaa ak nit ku bëgg àddina waxilatil xayaa yi ak nit ku amul kersa ak ñàkk kersa gi nu mu toll loo xamal nit weer ko ak wa tuulul amali nit ku bëri mébét ak wa zaalimun laa yantahi yonent bi nee na juróom benn jikko yi tux bitu dana effacé al amaalu mooy say jëf lépp loo jëfal yàlla ci lu baax yàlla neen da koy fël effacé ko mu set wecc kon yàlla nañ ci yàlla musal nañu defaraat suñu toogaay hmm. di nëbbal nëbbalante ay ayib hmm. loo xam lu bon ci nit ñu nëbbal ko ko parce que chaque jour yàlla chaque jour nga def yàlla loo xam ne tey bu ko tegoon fii caméra dootoo dara ci dara ci dëkk bi hmm. te yàlla da suturaal kon nañu suturaalante loo xam ci la nit boo gisee nit muy def naka sudu noonu sax nga ko balaa nga am kontaan nga istati ko balaa nga am loolu bi nga dugal ko youtube wa yaaju billah yàlla nañu yàlla musal ci loolu am na solo ñuy jaar ñëpp di kontaanee ñëpp euh, léegi damay ñëw dañuy ñëw si rafet ba yegg fu doy doy war daal waaw dañuy sant yàlla suñu borom rek vraiment di nuyu ñu fi tey ñuy journaliste yëpp di wax baatu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndax yàlla si yàlla lañu jógee ñëpp lañ ci moom lay delluwaat ñaanal Moussa Dioum yàlla nag yàlla sama borom fay àjjana instant bi ci biir la nekkoon waxtaan foofu ak ay waajuram moo tax instant bi mënumaa wax Gris Bordeaux lépp lu waroon a wax na wax na ko Balla Gaye lépp lu waroon a wax na ko may nuyu suma rakk saa kees di nuyu Frasier ba duñ xulle ak bépp mbër bu fi teew ak

ndax nu ñëpp kenn ku nekk bu la dara dalee yaa ngi dégg kenn ku ne doo nelaw ba set da ngay yàkkamtee xëy ba dem muy bànneex ba muy naxar ba ci sa moroom yu mbër te ñun ñi ñoo bokkante ak baay billaahi wallaahi taalaahi jàmbaar maa ngi koy wax toujours ñu yaakaar waxi dof laay wax lamba gi du dara am fola billaahi wallaahi taalaahi am fola amul kenn kuy génn àdduna malaaka mi ne la tëf di laa def na nga bëri amul sa jëf ju baax moo fay teew yaa ngi dégg Gris Bordeaux li mu waxee nii noonu la war a wan a waxee te loolu moo yoon ndax yàlla moo dogal ñun ñëpp ñu ne ci làmb ji ñu jiital ko mu ne président comme li Balla ngay wax léegi rek képp ku xewle ku nekk rek boo tuddee da nga koy gis ko yàlla na ko yàlla sama borom ak yàlla sàmm ko yaa ngi dégg wax ni gën xool ci làmb ji gën a laabir ci làmb ji gën a tabe nit koo xamante ni maanaam xool ci moom kon yàlla na ko yàlla sama borom aar yàlla aar Gris Bordeaux su ma rakk na ko yàlla aar Frazier ngi dégg ñun ñëpp mbaa jégalu si kàddu yi nag quoi Moussa Diop daal li may yàlla sama borom fay àjjana ak mbooloo bi lu nekk mel xiam rek